ñoo ngi àddoo fii ci institut Hikmatul mi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56. tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukki ci alquranul karim suñu borom tabaraka wa taala di ñu wax wax joo xam ne nii jullit yëpp war nañ ko setantal te di ko dund. kon ñoo ngi ñaan xikmab tey bii képp ku ko déglu nga yaatal ko ci sa mbokku jullit ku ko def ku nekk yàlla na la ci suñu borom tabaaraka wa taala jariñ àdduna ak àllaaxira te musal la àdduna ak àllaaxira ndax bu ñu sañoon kat ñëpp jariñoo ko ndax bépp xol buy dund boo xam ne ni imaan ma nga ca bu ko déggee dana ci jariñu ci lépp lu koy kaweel waaye dana ci jariñu tamit ci watandiku lépp lu koy suufeel bu ñu demee ci sooratul xijiri ay ñaar fukk ak benn suñ borom tabaaraka wa taala dafay wax ne lépp lu ngeen aajowoo yéen mbindeef yi rawatina doomu aadama yi lu ngeen soxla àdduna ak àllaaxira suñ borom ay magasin la ci yor yoo xam ne nii yéen ko tax a jóg doyewu ko dara waaye nag dara du ca wàcc te waxtoom jotul ah, kon nag loole lañ cey déggee mooy suñu borom tabaaraka wa taala mbindeef yépp seen aajo mën naa fajo àdduna ak àllaaxira te fa ñuy jëlee ku fa dem fa ñuy tibbee du feeñ mbirum yàlla moo toll noonu moo tax mu ne wa in min cheyin illa indana xazainuhu wa ma nunaziluhu illa bi xadri maalum suratul hijr aay ñaar fukk ak benn mbokk yi aay bi képp koo xam ne ni settantal nga ko te di ko dund suñ borom dana la ràng juróom benn jikko yi nga xam ne ni kum ko da nga am naflaayu àdduna ak alaaxira maanaam danga nga tabbi àjjana te fekk yaa ngi ci àdduna boo dee nag àjjana ja gën a sarate gën a neexate juróom benn jikko yi mooy lan mooy woyaf ak doylu ak muñ ak rafet njortu ak yéene ñëpp seeni cër yéene ñëpp itam jàmm te suñu borom dana la musal ci juróom benn jikko yi nga xam ne mooy safaano juróom benn yooyu muy rëy ak xir ak yàkkamti ak ñaaw njortu ak iñaan ak soxor yal nañ ca la musal ndax yooyu kat mooy yi sonal doomu aadama yi mooy yi leen di fitnaal àdduna ak alaaxira mbokk yi kon nañ am eh, ak gëm yàlla bu baax a baax ci wutiin wi li ñuy wut wut de ayut wutin wu dagan aayut ndax ndigalul suñu borom la waaye nag bu fekkee ne gëm nañ yàlla Ah, danañ ko jaar ci aw yoon te te néeg yàlla ndax mag ñi sax daanañ wax ne kat yàlla kenn mënu koo def loo yaar yi ñore leen yan ñu ne lum dogalul ak lu jotagul kon lépp lu yàlla dogalul kenn mënta fexe ba mu am lépp lum dogal te jotagut kenn mënta fexe ba ba mu def ko te jotagut te ñun de yàlla dañu fi indi ñun doomu aadama yi ak jinne yi ngir ñu jaamu ko rek loolu lañu fi indee mu mel ni dañ na ko waaw kon fu ñu jëlee luñ lekk ak luñ dundeek yooyu mun a leen mun nañu sax leen ci li leen fi li ci des man maa koy gàddu muy lu ngeen dundee waaye nag sabab dana ca dox sama diggante ak yéen moo tax ñaari aay yooyu yu ama am solo la yu mat a bàyyi xel la te mooy wa maa xalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba ca des mooy wa maa min daabatin fil ardi illa ala allahi moo tax sañ ba jaxati ci wayam yu am balaaxa ya am na wenn bayit rek bu mu way wax dafa boole ñaari aaya yooyu yëpp daf caa wax ne xamal ne yàlla danoo yan lëf yanul nu lëfit ak topp moom lanu yan wërsëg yi moo ko yanu kon wërsëg yi moo ko yanu donte sabab nag mën naa dox suñu digg ak moom ndax mooy teg yi nga xam ne ne moo dox suñu diggante ak moom kon nan góor nañ góorgóorlu bu baax te farlu bu baax waaye te bàyyee suñu bopp suñu borom tabaaraka wa taala te bañ a jàpp ne benn doomu aadama dañoo xañ dara wala mu yàqal ñu dara bañ di ko iñaane kenn ku nekk lu mu yor lu mu rëy rëy rëy rëy rëy nan ko ko yéene te xam ne euh, boo ko doon natt jëlal la suñ borom am aw fepp suuf ngay jël di ko xar nangami junniy yoon ba dootoo gis li koy xar lum doon kon yàlla du jeexal waaye kenn ku nekk nag moo seet la yàlla ci yow mu jox la ko kenn mënta yàqal kenn kenn mënta jël ci cirub kenn kon kenn ku nekk na féexal boppam bu bëggee tàbbi àjjana te déegut yàlla na suñu borom waa wa taala defal tawfiq ba ñu bokk ci lool yi àdduna ak àllaaxira bu ëllëgee ñu indiwaat leneen loo xam ne nii mook aay bi ñooy dëppoo jëlee ko ci waxi mag ñi ak seeni xikma ak seeni woy ak seeni balaawa di jaajëfal mbokki taalibe yi bu baax ci jàppale gi ñu jàppale waa daara daaray Hikmatul mi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir waaye di ci beral loxo waa Café Touba Bagdad ci gunge gi nga xam ne dañoo mas di gung dañ koo mas di gunge waa daara Hikmatul Yawmi ci mboolem yëngu yi ñuy yëngutu rawatina daara alquran ji nga xam ne ni moo nekk fii ci Thiès seeni teraanga mosu fee jóg lépp lu jëm ci kafe gi ñuy xewloo te kër gi macha allah mi ngi bëgg a xumb ñoo ko yor waaye yemuñ ca ñoo ngi ci dolli seeni teraanga ci seen wërsëg ci liggéey bi ñuy liggéey kon nag nañu ñëpp ñaan la ñu ñaanal leen yàlla gën a barkeel seenub liggéey ndax xam nañ ne lépp lu ñu am dañ ko delloo suñu borom beneen ko joxoon liggéeyale ko Serigne Touba kon ñoo ngi sant Serigne Daoud ture bu baax ak sëriñ Abdou Lahad Lay ak mbooleem ñu ñu seqal liggéey ba te di leen ñaanal di leen xamal ne waa Daara Hikmatul Yawmi gis nañ taraanga yi nga xam ne nii yéen ngi leen koy jox ngir ñu boole ko ci liggéey bi ñuy liggéeyalee Serigne Touba di santaat mbokk yi ci des yëpp nag ak fu a ne li ngay def